بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatulah.
mbokki dëkk bi ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa ta'ala noo ngi ñaanal sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal ak mucc ginnaaw loolu ñu leen di nuyu nuyu lislaam mooy jàmmi yàlla ak yërmandem ak barkeem yal na ko yàlla wàcce ci ñun comme ni ko suñu baay waxee léegi seeni doom seeni mbokk jullit ñoo ñëw ci dëkk bi nga xam ne gën nañuy kontaan bi ñëwee ci dëkk bi fekk suñu ustaas bu ñu jàngal fii mooy cosaanam mooy ustaas Malick Ndiaye bu Thiès ñu gën a kontaan ndax ni ko ustaas waxee suñu sëriñ la suñu mag la suñu kilifa la kon li waraloon tey daje gi yéen mooy fàttalante ci suñu wàllu diine ustaas waxoon na ko démb ndax xam ngeen ne ay julit moom suñu góor gi wax na ko léegi doomu aadama du dara doomu aadama nee na du dara te ni mu ko waxee noonu la amee nee na doomu aadama bu xamoon kuy yàlla du lekk du naan du nelaw lu mu jaamu borom bi maa ngi dëggal waxam ne ko malaaka yi xam yàlla du ñu lekk du ñu naan du ñu sëy du ñu nelaw amuñu benn soxla lu dul jaamu yàlla te xam nga la gën a doy waar mooy bu yowmal qiyaamee bu ñu dekkeek ñépp ba yàlla àtte jaami ba pare ñoom dañuy sujjóotal yàlla ñu ne yàlla ñun jaamuñ la dëgg-dëgg jaamu te ñoom xoolal ba leen yàlla bindee ba léegi du ñu lekk du ñu naan du ñu nelaw du ñu sëy du ñu waxtaan ñu ngi ci jaamu yàlla du ñu dee ba bés pencum yàlla yàlla di rey dekkal leen lan lañuy wax yàlla la waroon ci jaamu de ñun defaluñ la ko kon nag ñun ñi nga xam ne da nga fen fii da nga jëw fii da nga lekk fii da nga naan fii da nga nelaw fii doo julli fii doo tudd yàlla fii boo dajeek yàlla yow loo war a wax kon wax na dëgg suñu góor gi li wax wax na dëgg tey nag suñu doomu ndey oustaz Saïd li mu ngi tànnal benn tomb bu am solo tomb boo xam ne ni ko góor gi waxee fukki mbir la ak juróom benn borom téere bi mu ne góor góoru leen ci ndax ngeen texe mooy ndeku leen fukki mbir ak juróom benn ku bëgg a dem aljana na ko mooy te ndeku ndax benn boo ci jàpp tëkoo ba fam lay jëmee du baax kon kay wax dëgg yàlla ku ñëw ci benn société bëgg a liggéey directeur société bi ne laa boo fi bëggee yàgg moytul nangam ak nangam ak nangam ak nangam boo amee xel noo war a def danga ko moytu bu baax a baax a baax a baax rawatina boo ko moytoo saa bu ma lay fay dina am lu ma la ci yokkal kon dana gën a neex kon waa dëkk bi génn leen ñëw déglu waxtaani bu jeexee guddi gi amaat nañ beneen programme suba comme ni ko ustaad waxee li ko dalee dix heures suba yeewu nañ baba jant bi so saa bu ngeen programme moo xam ci biir jumaa ji la wala ci mbedd mi la ne dañoo dañoo bëgg a jàngale nu ñuy taxawee ku génn àdduna dinañ ko jàngale indi nañ bagage yépp dañ koy jàngale fu ne indi nañ mëlikaan bi coton bi lépp dañ koy jàngale wone ko ba nga xam ne ku ko fekkee tey suba boo fekkee woon ku génn àdduna buñ la ko joxee nga mën ko taxawee te lu jafee ngi noonu nag jamono bi ñu toll lu jafee ngi noonu ni ko ustaas waxee damaa bokk ci benn dëj bu génn góor gaañowoon ñu jëlee ay ustaas ustaas bi bu ma ñemee wax ma ne Arabie Saoudia lañ génne ñetti ustaas ñoo war a taxawee góor gi sang ko doomu góor gi sëtam sama xarit la mu ñëw mu boole ma ci bi ma duggee ñoom ñu ne ñun ñooy maanaam ñoo war a sang néew bi daal ma ne waaw d'accord naa man damaa ñëw rek pour fekkee ànd ak yéen waaye keroog ci kàttanu yàlla man maa sang néew bi ñoom lañ ma mujj tontu mooy jàng nañ ko ci téere waaye mosuñ koo mën bu du doon lii duñ ko mën kon jàng ci téere yi taxul nga mën ko dégg ñu koy nettali taxul nga mën ko ñeme néew taxul nga mën a sang néew il faut ñu jàngal la ko won la ko jafewut nag benn fan dong buñ la ko jàngalee won la ko nga xool toog déglu suñu paree bu nit génni àdduna nga defal ko ndax ñetti ndox lañ koy sangee première ndox deuxième ndox troisième ndox sàng ñetti sër bu la neexee nga sàng ko ñetti sër bu la neexee juróom xalaas kon jafewut bu bu ko waa dëkk bi sàkkoo ci ñun jigéen ñeeg góor ñi place bu leen neex tànn leen ko woo leen ñu suba insha allah ba timis bu ñu wooyee ñu defal leen ko bu mu nekk guddi nag ndax bu guddee place bañ koy defee du leer ba ëpp nit ñëpp duñ mën a gis na nekk ci bëccëg bi kon loolu insha allah dama ko dugal rek ci biir di ko sàcc di ko boros balaa oustaz di tëj waxtaan bi kon ñu ngi bàyyi oustaz mu dugal ñu tem bi yàlla na yàlla def ci ñu dégg ak topp def ko ci yéen yàlla nangul ñu nangul leen wasalaamaaleykum عليكم السلام جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki julit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi ñaan bur yàlla subhanahu wa taala mu barkeel sunu jotaay bi ñu ngi jiital ci nuyoo bi sunu baay bi ñu ziyaar si ak njabootam ak magi dëkk bi yëpp di ci teg imaam ak borom dëkk beeg ñépp ñi nga xam ne ñu ngi dégg sunu kàddu ñëw nañ fi dippi démb jóge Dakar ci sunu ndigal benn jigéen benn mbokk xarit soppe boo xamante ne yàlla subhanahu wa taala dogal na ne sunu benn xarit sunu benn ndongo moo koy denc ñu xamante ci loolu xaritoo ci loolu ci yàlla di liggéey ci toolu lislaam bi mu yàgg sàkku ci ñun pour ñu ñëw ci dëkk bi ziyaareel ko way jur yi ziyaareel ko waa dëkk bi ba yàlla dogal léegi nii yàlla di ko doog a sottil ñu ñëw fi ci loolu ziyaar ak jokk mbokk moo ñu indi ci dëkk bi ñu ñaan yàlla yàlla nu ko yàlla nangul ñoo nañ fi nekk seeni doom yoo xam ne liñ fi indi mooy li ma leen wax léegi mooy ziyaar ak jokk mbokk ak ku nekk la nga am la nga yor ci loolu nga mën a jëriñ say mbokk ñun de lii lan am mooy diine amuñu lu dul loolu jàpp ne tamit waa dëkk bi soxla nan ko ñu ñëw fii jàppalante ci ak yéen ci loolu démb defal nañ leen film Rabia yemul ci benn film boobu rek film yu bari lañu yore wax naa ko démb dañu yor ay film l'islam film yoo xam ne ci arab la nekk waaye dinañ góorgóorlu comme am na yàlla lu ñu ci dégg dénk tuuti ñu koy ñuy dégg làkk bi dinañ ko jël di ko sottiwaat ci làkk olof walla pulaar pour nit ñi dégg ko incha allah guddi tey nañ leen tegal bilaal mi doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ko noddal bilaal muazzinu rasul démb rabia lañ leen tegaloon rabiatal adawi ngoonu tey gi sunu daje bi ñu ngi bëgg a fàttalante ak yéen fukki tomb ak juróom benn yoo xam ne ku ko moytu rek dugg aljanna sittata asara asiya ijtanibu sittata asara asiya tuflihu boroom xam-xam bi nee na yow mii sama mbokk jullit yow mii di ma dégg gëm yàlla bëgg tiyaaba bëgg ëllëg mucc ci safara dugg aljanna mu ne moytul ma fukki mbir ak juróom benn boo bëggee texe li may sàkku ci képp ku teew ci barab bii wala ngay dégg kàddu gi boo mënee takk takkal boo mënee bind bindal boo mënee jël sa portable enregistré enregistré fukki tomb yi ak juróom benn boo ko moytandikoo mooy texe nga dugg nga aljanna fukki mbir ak juróom benn yi ma bëgg a wax nga xam ne du génn yàlla nee na yonent nee na benn bu ma ci lim danaa jéem ci sama kemtalaayal kàttan wax ne fii la ko yàlla wax fii la ko yonent bi wax yàlla da koo tere yonent bi tere ko kon lu yàlla tere yonent bi tere ko ko bàyyi du ko ajjana mbokk yi pour ñu bañ a yàgg ci tomb yooyu ndax waxtu yi dafa xat maa ngi mooy te ndikuloo sama bopp ci mbir yooyu bi ci njëkk di ko mooy te ndikuloo képp kuy jullit mooy alxamru mooy sàngara dafa xaraam ci diine lislaam yàlla da ko araamal yonent bi araamal ko soo déggee mbir araam na mooy lu nu tere yàlla wax na ci quraan ci suratul maida innama alxamr wal maysir wal ansaab wal azlaam rijisun min amali shaytan fajtanibuuhu la wax laallakum tuflihun yàlla nee na moytu leen ma sàngara sàngara nag buñ ko waxee ku gàtt xel ku amul xam-xam day jàpp ne benn butéel la bu ñuy jaay fële ca baar ba ku ko naan mandi loolu lañ wax fekk sàngara am na bu ñuy tox am na bu ñuy diwo am na bu ñuy pikiiroo am na bu ñuy lok am na bu ñuy naan am na bu ñuy fóon yii yépp sàngara la ndax xam ngeen ne yàmbaa kenn du ko tox kenn du ko naan luñ koy def héroïne kenn du ko tox kenn du ko naan nun koy def dañ koy fóon kon sàngara mooy lépp loo xam ne day tàqale nit ak xelam yonent alayhi salaatu wasalaam moonu leeralal loolu mu ne kullu muskirin xamrun lépp luy màndiloo sàngara la lépp loo xam ne bu ko ab jullit naanee màndi ak lu mën a doon même bu dee garab gi ngay fajoo la bu dee boo ko naanee màndi garab googu araam na ci yow yonent bi nee na wa kullu muskirin haram lépp luy màndiloo araam na kullu muskirin xamrun lépp luy màndiloo sàngara la yonent bi nee na lépp luy màndiloo araam na bu doon ceeb la sax bu fekkee boo ko lekkee màndi yow moomu ceeb araam na ci yow amatoo droit lekk ko boobu mooy benn xam ngeen ne sàngara li tax yàlla araamal ko mooy dafa am ay mbir yu ci nekk soo naanee sàngara yor nga jikko rabu àll yi nekkatoo nit léegi jikko rabu àll yi nga yor yor nga jikkoy xaj yor nga jikkoy mbaam yor nga jikkoy golo yor nga jikkoy mbaam xuux yor nga jikkoy jaan yor nga jikkoy gaynde yor nga jikkoy ganaar yor nga jikkoy xaj xaj mooy fekk fu sell mu daal di fay tuur dox xaj xamul fii jàkka la xamul fii xamul fii day daw ba mu nekk ko rek mu daal di yëkkati tànkam naan katu sàngara noonu la mel xamul fii jàkka la ku xasamandi xamul fii jàkka la xamul fii dafa sell xamul fii daara la fu nekk mën na faa génn waaye yàllaam jonkon wala mu taxaw daal di fay tuur ndox lan mooy jikko yi golo gi mooy foo romb mu xumb gis nga golo bu rëccoon léegi dugg ci quartier bi ñépp a koy topp buñ la toppee ba mbedd ma le di yuuxu nga delluwaat dëpp doo dem sa kër mukk doo yegg moo tax sàngara bon lan mooy jikkoy mbaam bi buñ la doon dóor fii ba suba dit doo dem waa ji nee na dafa joor ci mbedd mi di dem ma naan sàngara ba màndi mu jékki-jékki gis tàkk-tàkk mu taxaw xool tàkk-tàkk ba ci yàgg mu ne ko bu fekkee danga maa bëgg a jommil da nga xam ne maay jinne ju ngande ji ba tax ñu ne naankatu sàngara du ma du jommi parce que dafa amatul xel xel moo nekkatul ci moom ñeme naa fekk woy juróom bu jigéen mu ne day ànd ak moom loolu mooy jikkoy xar ji xar xamul ndey xamul ba soo xasee nekk naankatu sàngara yor nga jikkoy xar amul kii sama maam la amul sama bàjjan la amul sama yaay la amul maa ak moom ñoo bokk ndey ak baay amul ñoo bokk dara foo leen fekk ñuy jigéen ñeme nga yegg seen kaw lan mooy jikkoy ginaar ji amal gan nga ut basang bu set sijaada bu rafet jële ko màkk jële ko Medine ngalal ginaar jiitu la ci gan gi du ci topp naan katu sàngara ñeme naa dugg ci jàkka mu dem ba fa élimaan di taxaw mu sumi tubéyam dem fa kabine kon gis ngeen moo tax yàlla ne sàngara mooy umul xabaais mooy ndey ñaawteef yi moo tax mu bon moo tax ñu araamal ko ñaareel bi ci tënk ngeen yëg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaareel bi nga xam ne ku ko moytu dugg àjjana ginnaaw bàyyi sàngara mooy azina njaaloo gis ngeen tey njaaloo ni mu tasaaree ci àddina bi ak ni ko nit ñi oyofalee léegi sax olof yi dañ naan sëru Lagos la kër goo dugg fekk ko fa loolu lañ koy wax ñu ne sëru Lagos la kër goo dugg fekk ko fa léegi li kër gu ëpp ci li ëpp ci kër yi kër goo dugg fekk fa doomu njaaloo lu dul kër gu yàlla musal benn doom ñaar benn góor dafa toog Dakar ba ci àgg këram rek mu jooy ñëpp daw ñëw ne ko mbaa jàmm la ku dee mu wax benn sant boo xam ne daanaka sant bi amul Sénégal mu ne lu ko indi sama kër waaye santu sàngam damay bañ a wax sant bi santu sàngam lu ko indi sama kër ak ñun fa nu bokk ba sant bi yegsi fi rek mu jooy ndax léegi niñ ko nit ñi yombalee te xam ngeen ne waxuma yàlla dane dafa xaraam waaye yàlla dafa woon ci alquran wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sabila yàlla nee na bu leen ko jege bu leen jege njaaloo yàlla ne am ak mbon la te yoon wu ñaaw la xam nga kilifa gi juddoo ci dëkk bi te bëggul ku ko askan bëggul nit taxaw buntu këram ne ko diw diw diw diw diw jëm ci ay maamam parce que amul amul kenn xamul fu muy so fu mu soqee ko kenn xamul kuy woy juróom bu góor loolu ñaaw na wala nga am doom yow jigéen bis bu nekk xale bu góor bi sa doom ji taxaw naan la waaw yaay kuy sama papa loolu ndax rafet na waaw yaay man kuy sama papa ngay fen naan ko sa papa dafa gaañu sa papa dafa tukki woon ba léegi ñëwagul bëpp xale bi màgg loolu ñu naan nopp amul kubéer bis ñëw mu ne la yaay nag xam mbir yi leer na mbir yi leer na ndax xam naa ne nangam ak nangam ak nangam dañoo am benn xale bu jigéen bu jàmbaaree ci diine jàmbaar laa wax de jàmbaar ndax du def yaramu neen foo ko fekk mu ngi muur awraam yi mu ngi góorgóorlu yaayam a ngi États-Unis di ko naxee benn waay bu dëkk Amérique bu sant Jackson mooy papaam yaa ji di ko naxee loolu yow yaa ngi tudd Khady Jackson tur bi laay bañ a wax di ko wax loolu di ko wax loolu di ko wax loolu di ko ko wax ba xale bi màgg ci loolu benn bis rek am ku ñëw ne ko yow gëñ ngaa dégg sa yaay mu ne ko woo na ma fan yi mu ne ko waaw yow moom ba léegi waxagul ak kuy sa pap mu ne ko loolu mooy lan mu ne ko loolu mooy lan yow de di way sa baay benn waykat bu siiw la ci Sénégal mu ne ko da ngay wax rek mu ne ko wallaay koo koy sa koo koy sa baay rek mu dem jëndi crédit woo yaay ji téléphone ne ko waaw yaay mu ne ko ah mu ne ko yow ana sama papa mu ne lu tax nga laaj ma laaj bi mu ne dama bëgg nga wax ma rek dëgg gi boo ma ko waxul di nga dégg ci man loola métti mu ne ko ah sa papa de mu ngi Dakar mu ne mooy kan mu wax ko turu waykat boobu rek mu ñëw sunu kër ñu woo ma téléphone ma ñëw mu ne ma dama soxla xam sama papa te dama la cee yaakaar ma ne koy wax nga wax bu garaaw de ah yow waxoo moon sa papa mooy diw mu ne ma loolu lañ ma waxoon mais du dëgg ma ne ko léegi kuñ la wax mu wax ma diw la ah ma ne ko ku la ko wax mu wax ma ni mu demee bi mu waxee loolu comme xam naa kuy liggéey rajo Sénégal jamono yooyu ma xa jàpp ne kooku war na xam waykat bi ma ànd ak moom ci kooku ma dem ma ne ko soxla bu dee moom fay indi ban soxla la ma ne ko diw laa bëgg a xam fu mu dëkk comme yow rajo ngay liggéey te kooku maa ngi dégg kasetam yi ci seen rajo bi ngeen koy teg war nga koo xam wala nga xam ku ko xam mu ne ma xaaral ma woo diw ñu woo diw téléphone diw daan ñuy jox numéro waa jooju ñu woo waa ji téléphone ne ko dan laa soxla mu ne ñëw leen barabu sàngam ñu dugg oto ñëw kër waa ji ñu ne ko ñun de soxla sàngam moo ñu ni ñu wax ko lépp waaye ki ma àndoon biñ ne cëpp ci kër gi mu xool xale yi kër gi xool xale bu jigéen bi mu ne ko wax nga dëgg de kii mooy sa papa de ndax yaa xale yéen a nuroo man sax boobu defuma loolu ci xel mu ne ko wallahi kii mooy sa papa ndax yaa doomu jigéen yi yéen a nuroo benn ngeen ah ñu daal di jàkkaarloo kilifa gi ne ko ñun kat nii moo ñu indi nangam ak nangam ak nangam mu ne ban année la woon dégg ban année la woon loolu ban année nga juddu mu ne ko année man de sama kayit nangama ci nekk mu ne ah woy loolu dañoo amoon benn soirée Pikine laa daje woon ak sa mère quoi xoolal benn yoon boobu la rek ndaw si ëmb gis nga yàlla dam nañ yàlla musal ci lu bon kon mbokk yi yàlla dafa ñuy moytandikuloo njaaloo yàlla nee na bu ñu bu leen ko jege lu ñaaw la lu bon la dafay détruire xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne thalathatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim cheikhu zani wa malikun kadhab wa jahilun mustakbir mbokk julit yi yonent bi yàlla yónni woon ci ñun nee na mooy tandiku leen ñetti nit ñi ñu ne ko lu tax ñuy moytu ñetti nit ñi mu ne ndax yàlla du wax ak ñoom yowmal qiyaamati yàlla du leen setal yàlla du leen xool mbugal mu rëy ñeel na leen ñi ñett ñett ñi yàlla du wax ak ñoom laa yukallimuhumullah lii may nettali waxu kan la waxu yonent ki yàlla signé ci làmmiñam kase ci yonent bi yàlla dafa signé ci làmmiñam daat ci kase def ci tampon signature bi mooy lan mooy maa yantiqu anil hawa du wax lu ko neex lan mooy kase bi mooy in huwa illa wahyun yuha lu mu wax maak ko waxloo ah kon yonent bi dégg ngeen de yàlla moo waxal boppam ne yonent bi ma yónni ci yéen du wax lu ko neex te lu mu leen wax man mii maa ko wax loo yonent bi ne ñetti nit ñi yàlla du wax ak ñoom ku yàlla waxul foo jëm. yemul ci wax na ñett ñi yàlla du wax ak ñoom waaye yàlla du leen setal du leen laabal yàlla du leen xool bëtu yërmande te mbugal mu rëy ñeel na leen ñu ne ko yonent ñoo ñan la mu ne sayxu zani màgget muy njaaloo góor gi wax na léegi yàlla na ko yàlla fay màgget lan moo war a nekk xalaatam dañu ne ñëpp dañuy dee waaye xale ak mag ci kan lañ ko gën a yaakaar ci xel ci mag rawatina nag ko am juróom ñetti fukki at wala nga am juróom fukki at wala nga am juróom ñaar fukki at boo demee ba yegg barab boobu ñu yaakaar ne da ngaa waroon ut der ak kurus ak jege jàkka ji nga delluwaat ci caaxaan dafa ne ba léegi yaa ngi yàgg ko am fukki at ak juróom yéen a yem yonent bi nee na màgget muy njaaloo yàlla du ko jéggal mukk ci àdduna bu tuubulee ñu ne ak kan mu ne malikun kazab buur buy fen loolu nag moo bari tey ci àddina bi looloo bari Sénégal ay buur yuy fen bu ngeen ma falee boo demee ci maire yi ñu ne bu ngeen ma falee boo demee foo dem ñay ut kàddu nit ña dañ naan bu ngeen ma falee te ñépp ña ci ëpp ay fenkat lañ yonent bi nee na buur buy fen yàlla du ko yërëm mukk ci àdduna lu tax ndax da ngay war nit ñi nit ñi dañ laa jox seen kóolute dafa ne seen coono wala seen seen di nga leen ci dimbali nga fen leen yonent bi nee na yow yàlla du la xool mukk yàlla du la yërëm moo tax bu ngeen yaakaara ne te xam nga lu doy waar politiciens yi dañoo jàpp politique yeggul àllaaxira waaye ban dugg bàmmeel soo waxee ñu ne la politique eggul àllaaxira non booy affaire yi fii la yem dañuy profité yor li ñuy yor tabax li ñuy tabax tukkiloo suñuy doom nangam ak nangam tëdd nelaw affaire yi jeex na jeex laa ilaha illallah ban dugg bàmmeel yonent bi dane buñ la sàngee ci morgue bi sàng la jullee la teg la ci oto bi wala fas wi yóbbu la ci bàmmeel yi gas ba mu xóot yoor la ñépp dugal seen benn tànk ñu roor ñu génne delloo ci suuf si rek yonent bi nee na sa mbir leer yow mu leer ne bëccëg nga xam ajjana nga jëm wala safara nga jëm day leer nañ ci yow yonent bi nee na nit ñi dañuy nelaw bu ñu deewee yeewu annaasu niyaam iza maatu yastayqizu kon ñaareel bi mooy buur buy fen ñetteel mooy jaahilun mustakbir ku xamul dara jàngul alif ba yaa waaye di rëy rëylu di rëy rëy baaxul sunu mag mi ñu doon jàngal dana rëy ñetti raa la rëy ñetti raa la rëy soo ko defee lan moo tax nga rëy dafa am raa bu la dugg moo tax rëy juddu ci yow ñu ne ko ban la mu ne réer foo gis ku rëy dafa réer ñu ne bu nit réeree nu muy def mu ne day rëy ñu ne bu reewee mu ne mu reew réer rëy reew day nekk ci jàkka ji boo ko nee nii mun a xam merde te ci jàkka la nekk puusal sax ñu jubanti sàppe bi mun a xam te ci néegu yàlla la nekk waaw mbedd bi moom ku wax dalay saaga parce que dafa réew moo tax baaxul yal nañ ci yàlla musal ñetteel ci mbir yoo xam ne ku ko moytu dugg aljanna texe mooy alliwaat góor jigéen góor jigéen te xam ngeen ne tey duma wax sax réewu tubaab yi waaye Sénégal gii ak bëri ay góor jigéen ak bëri ci xale yu góor yi góor jigéen ak bëri ci intellectuel français yi góor jigéen ak bëri ci nguur gi ay góor jigéen suñuy xarit yi ñuy àndal dañu gàddu benn lis yóbbu ko ci sëñ Baara ñu ne ko sëñ bi mu naa ñu ne ko ñii ñëpp ay góor jigéen lañ sëñ bi tiit ñu ne ko gis nga ñii bu ñu waxee seen tur dëkk bi day tas ndax di nga gis borom kër di nga gis xale bu xaru dóor boppam balu fetal di nga gis jigéen ju tëb ci étage tëb xaru ndax xamul woon ne borom këram góor jigéen la. ñaari mbir dafa bëri tey ci Sénégal muy franc-maçonnerie ak góor jigéen te lii may wax tubaab yi ñoo ko wax de ñoo ne ñoom dañoo jaaxle ni franc-maçonnerie tasee tey ci ci Afrique ci ñeenti pays Sénégal Mali Burkina Faso. Côte d'Ivoire te lu leen jaaxal ñu ne dafa bëri ci jeunes intellectuels yi foofu la bëri lan moo ko waral mooy dañ ko ubbi mooy ku ko nekk rek am xaalis am alal te xam ngeen ne réew mi dañoo jël alal teg ko ci kanam daal di mu jël lu baax jikko ju rafet ngor diine ñu sànni ko fële léegi ngor amatul diine am amatul jom amatul. ndax lan alal rek xaalis la ñuy xool xaalis noo def ba am xaalis rek baax na moo tax gis nga sunu gouvernement yi xam nga lu ñu tëralal jeunes yi jeunesse bi xam nga lu ñu leen tëralal benn politique politique boo xam ne ñetti mbir moo ko làmb LMD LMD mooy politique gu gouvernement bi ci jeunesse bi L bi lan la làmb ñëpp léegi ay mbër lañ bëgg a nekk mbaa yéen seen doom yi bokkuñ ci bu demee Dakar ñëpp mbër lañ bëgg a nekk ñëpp bàyyi nañ jàng waaw bu ngeen demee nii tefesu géej gi ñëpp a ngay entraîné di yëkkati ay saaku di yëkkati ay machine koo wax fii booy kase yi millions yi wax nañ dëgg parce que juróom benn minute rek nga am ci ñaata cent millions juróom benn seconde nga am ci cent millions lan moo doon problème bi mooy kër gi kenn tabaxu ko nga ñëw ne papa toxu leen indi caterpillar dóor ko mu daanu ñu yëkkati ko R plus 3 daal di jënd benn 4x4 tàkk jabar commencé ubbi benn affaire 100 millions juróom benn seconde nga am 100 millions lamb M bi lan la musique musique ñëpp ay musiciens lañ Sénégal ñaata écrit lamb la am mbër ñaata orchestre musique la am dee bi lan la mooy danse waaw ku nekkul ci bii rek yaa ngi ci bii wala yaa ngi ci bii fecc fecc ku feccul amoo xaalis ku woyul amoo xaalis ku bëreewul amoo xaalis ñett yi boo ko defee boo ko defee ñaari weer nga tabax sa kër yaay wala nga tabax sa kër baay wala léegi nga yóbbu ko màkk ku bëreewul woyoo feccoo di nga fi yàgg de doo am dara moo tax ku wax ñu ne la jàng dafa yàgg waaw boo demee ci ambassade yi di ñaan visa ñu may la bu nekkee waykat nga wala mbër nga mbër yi fan la ñuy entraîné ji fan la ñuy entraîné ji États-Unis ku ñu signal kasa rek da ngay dem ñu may la visa nga dem waaye bëggal jàngi dem ambassade kenn du la may visa kenn du la may mbokk yi kon ak ngóor jigéen yàlla daf ko araamal dafa xaraam dafa ñaaw dafa bon moo tax gis nga xeet yu ko njëkk a def yàlla ba mu leen di alak dane suuf si sax bëggatuma ko gis suuf sañ doxoon bëggatuma ko gis xeer ya bëggatuma ko gis garab yaa kër yañ dëkkoon ak lépp lu ñu mës a teg bët man yàlla bëggatuma ko gis luut la dëkk luut la sa doom yàlla jibril la yónni jibril ñëw roof ay laafam ci suuf si naaw ak moom ba kaw asamaan wëlbati suuf si lan la ñu yàlla wax jaal na aaliyaha saafilaha wamtar na alayhim hijaratan min sijjin waaw ak ngóor jigéen baaxul yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daan ñuy wax ne ci xadis boo xam ne xadis bu wér la yonent bi ne ñu képp ku ngeen gis muy def ngóor jigéen man wajadtumuuhu yaamal amala qawmu luut faqtulul faaila wal maful bihi ki yàlla yónni woon ci ñun nee na képp ku ngeen fekk ak fu mu nekk muy def mbirum góor jigéen yonent bi nee na rey leen ki jëf-jëf ji ak kañ ko doon def mbokk jullit yi dama leen di laaj benn laaj rek ku nekk tontu ko mooy góor ak góor góor nan la mën a bànneexu ci yaramu góor rawatina nag góor futti góor juutal ko yonent bi nee na bu góor simmee góor rek yàlla fa mu nekk arsh day jaayu di yëngatu arsh rahman day yëngatu waaye lu lay woon loolu mooy nit ñi dañoo yegg ci mbon mooy nit ñi ci mbon ku ngi yegg mooy lu yàlla wax ne lii la déedéet nañ ko wëlbati ñu won yàlla ne yow yàlla li nga wax leneen li mën naa nekk góor ak góor nañ sëy jigéen ak jigéen nañ sëy gis nga xaw ma ndax tere jongal jigéen yegg si na fi loolu moo ko waral moo tax comme dañu bëgg jigéen di sëy ak jigéen ñu ne bu kenn jongale di jigéen maa ngi jéggalu ci kàddu gi ku ko def dañ lay amende tëj la lu ko waral mooy dañu ne nañ bàyyi ñooñu ñu bànnee ko ci seen i moroomu jigéen ñi jigéen ak jigéen léegi di sëy loolu loog moo ko waral yal nañu yàlla sàmm sutura ñeenteel bi ci mbon gi nga xam ne dañ ko war a moytu pour ñu dugg aljana balaa may dem ci ñeenteel bi war naa laaj ñett yi ma passé yéen ak yàlla ma xool ndax ñi toog ci baas bi ñu ngi jàpp li may wax ban moo njëkk sàngara sàngara ñaareel bi njaalo njaalo ñetteel bi góor jigéen góor jigéen ñeenteel bi mooy riba riba gis ngeen tey ni mu yaatoo dëkk boo dugg buntu dëkk ba bànkang fa ñii fayeeku sax salaire yi dañ leen di yóbbu léegi ci banque yi allez de ku amul ku ku ku demul ci banque doo fayeeku képp kuy liggéey ci gouvernement bi sa salaire dañ koy wiiri ci banque jigéen ñi ñu indi leen ay crédit mutuel ay pamekaas ay ay ay ay lu tax ndax yonent bi dane woon bu ñu demee ba axiru zaman riba dana tasaaroo ba ku ci lekku li di nga lekk ci pënd bi di nga nekk nit ku baax toog sa kër di jaamu yàlla sellal am benn waaye bu dem fële gañab ribaam pays mim ñëw daal di jël benn paquet suukar ne la ñëw ne la cheikh bi maa la siyaaree kii nga jël ataaya naan fekk ci riba bi la ko jëlee
waaw
te yonent bi nee na kullu maalin nabata ala haramin fan naaru awlaa bi bépp alal joo xamante ne kullu jasadin nabata ala haram fan naaru awlaa bi bépp alal boo xam ne cosaanam dafa haram yonent bi nee na alal jooju safara moo ci yey yonent bi ne man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salaata arbaina yawman képp koo xam ne dangaa lekk benn tibb bu araam boo jullee ñeen fukki fan yàlla du ko nangu boo ndékkee lu araam mbaa nga añe ko wala nga reere ko nga ñëw taxaw ci jàkka yi naan allahu akbar kenn du la ko nangul parce que li nga lekk dafa araam sa biir bii lu araam a ngi ci yonent yàlla Moussa dafa gis benn waay buy ñaan ñun fii bu ñuy ñaan nan la ñuy def dañu yëkkati suñu loxo waa ji nag dafa yëkkati loxo yi ba mbagg poqataan yi feeñ ndax bëgg yàlla may ko yàlla ne Moussa kii duma ko may Moussa ne ko yàlla lu tax mu ne li mu lekk dafa araam li mu sol dafa araam fi mu taxaw dafa araam naka laa koy nangule fa anna yustajaabu lahu kii lépp lu mu def dafa araam kon mbokk jullit yi nanu xam ne riba baaxul yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran ya ayuha alladina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya min arriba in kuntum muminin fa in lam tafaalu fa azanu bi xarbin min allahi wa rasuli yàlla nee na yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla xoolal yàlla waxul yéen yéeféeri de yàlla waxul yéeféeri de yàlla ñan la woo yàlla ñan la woo ñi ko gëm yaa ayyuhal lazina amanu la wax yéen ñi gëm ngalawaay moytu leen yàlla ngeen bàyyi lekk riba moytu leen yàlla ragal leen yàlla ngeen bàyyi riba su ngeen lànkee ne du ngeen bàyyi riba yëg leen ne déclaré ngeen yàlla guerre ak yonentam kuy xeex ak yàlla ak yonent foo jëm kuy geer ak yàlla ak yonentam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na laylatul isra wal miraj mu ànd ak Jibril ñu dem gis ay nit yoo xam ne yonent bi moo leen romb seen biir yaa nga rëy ba tol ni néeg kullama araadu an yaqumu saqatu saa yu ñu bëggee jóg daanu ndax biir yu rëy yonent bi ne Jibril man haula qaala haula alladina yakuluna riba min ummatik ñii ñan la mu ne ñii ñoo doon lekk riba ci sa xeet ñu ngi nii mooy borom biir yu rëy yi kon riba baaxul boo ci tabaxee ci àdduna takk ci jabar am ci oto dundal guddal fan ñëpp danañ la yërëm lu tax ndax yàlla ngay xeexal te balaa ngay génn àdduna kuy xeex yàlla yàlla dina la yëkkati ba ci kaw dóor la ci suuf lépp loo am dinañ ko jaay fajala ko danañ jaay oto bi fajala ko danañ jaay kër gi fajala ko danañ jaay tool bi fajala ko danañ jaay mbaam meeg fas bi fajala ko lépp danañ ko jaay fajala ko te doo wér mukk xam nga yàlla kañ la lay bàyyi boo jeexalee ba teexal jëkk takk ba kër gi yëpp ndóol ba ku la doon séen di la ñee tey gis la di la yërëm yàlla doog laa rey moo tax riba baaxul
wallahi dëggal li mu wax man fi ma dëkkee xam benn borom alal bu fa nekkoon daan def ne benn nga fay ko ñett kaani gi la ko tuddoon kaani gi boo ñëwaan xam naa turam ak santam nga dëkkam yëpp boo ñëwaan ne ko dama laa soxla mu ne waxal nga soxla kaani gi mu ngi fi kaani gi ñu koy leb balaa muy dee wallahi feebar na feebar bu métti ba daa wax doom yi lakk leen ma doom yi dañuy tàngal safara di ko lakk ci ginnaaw gi mu naan ah sedd na de lakk leen wallahi laay wax de penku laa jublu benn bés mu ne doom yi lakk leen ma doom yi ne ko matt amut waxande yi paa yi daan am mu ngi teg waxande mu yëkkati waxande wi génnee yére yi jóor ci néeg bi yëkkati waxande wi dóor ko mu toj mu ne jëlal matt mi ngeen lakk ma balaa muy dee moo gën a ñuul D- DVD bi waa ji teg nii
góor gi nee na am na kàddu bismillah ñëwal waaw sëñ bi bàyyi bàyyi wax noonu rek bàyyi wax noonu rek.
waaw bismillah
bàyyi wax noonu rek.
jërëjëf maanaam li nga wax ci riba usu bi lenn saa yi ci wàllu riba. sama doom mu ngi ci kees bi. soriwul.
waaye wax ko nit ñi dégg ko ci micro bi jëriñoo ko ndax nit ñi jëriñoo ko comme wax ju baax la
soo ko toog ba nekk fii muy fiat di fi liggéey. yor ni testament. yàlla dogal am benn patron bu bari xaalis.
bi mu bi ñuy liggéey di jox xele boobu borom xaalis bi siiru ñu dem ni ko yow xanaa sa doom yi nekk ñëw fii dina siiru ak la yàlla jox ci alal te nga ko wutal woto mu ne wallaahi am naa ko waaye ñu ñëwuma ko ñu ne ko lu tax sama xaalis ni mu ni ma ko amee bare na waaye dafa dafa ñaaw ñaaw na ñaaw goo xam ne euh, maa ngi maa ngi tiit ma jox ko ci mu wañu ko jënd ci oto bala moo egg fenn dee ak oto ba at oto oto bi boo xam ne tàkk ci kawam ndax ni ma amee alal ji daa daa dafa ñaaw lii sama benn doom bi nekk fii yor oto moo ko témoin ak benn xele ci ci euh, riba wala sàngara bi ngay wax xam nga ne képp ku dem ba fekk sa doom nga at na tëdd ak moom war ngaa xam ne yow ànduloo àndu toog sam xel doom ji nga jur nga dem ba ànd ak moom ba ci ba naa am am na ëmb nag ëmbul war ngaa xam ne nekkatu sa xel moo tax itam yi itam yi nga wax yàlla yàlla fay ye- waaye nag li ngay wax de alxuraan la de du neex nag Alaaji Ibbu Saaxo day jàng fi Dakar benn bis dégg naa benn waaye di waaxu ba àgg fa moom ni ko Ibbu mu naa mu ne ko maa tey mu naa mu ne maa tey gis nga alxuraan boo dee wax ci alxuraan bar na sama kaas gi dañ naa maa tax mi wax ndax du du day jaar ci du du du amul lu wet ñaamu alxuraan boo ci dee wax dañu naa maa tax ngay wax ngir baal maa waaye sa tem yii kat yëpp a wér yàlla na yàlla fay
Oustaz am na ñaari ma bëgg a tënk. incha allah. Dakar bii nag dama may ku koy wax. Dakar bii laa ko fekk. benn bi. góor jigéen yi ci laa jëm. danaa wax. moom mi xam ne dinaa wax. damaa dem ci benn. mu war maa may xaalis. ma dem mu may ma ñaari junni. ñu dem ba jant bee soo. ñaari góor jigéen war dugal Mercedes wàcc ku ci kenn yor na nga la war a yor barke alxuraan kenn ku ne ñu may la cent mille ma ne waaw lii lu mu doon ñu daal di noo ko moom ma ne diw yow ñaari junni nga ba jox jox ñi ñeent fukki junni man ma bokk la ak ñoom ma ne ko maa ngi ñibbi loolu maa ngi ko ci wax ji kenn noo àndoon benn noo àndoon góor yi nga ne dañuy dencante maa nga dugg PA benn kalandoo da nga ni ma yow war a fay ñaar fukk wàcc gol fa ndaw si dend ak man li ma doon mi demal nga ci démb ca yëf yaa mu ne ko ah ma ne démb ma mu ne ko man de waru gar wa maa koy boon muy góor ak góor guy takkante mun ma ñeent fukki junni de man mii maa koy ma ne ko subar bi taxawal góor de ma ne ko wàcc taxawal donc pour nga ko saagandee mu daal téye wata bi ma mu bind ko rap uf ko lii teg naa caabar kon lii wax ko ay demal demal ñu nekk ci
jërëjëf yal na yàlla fay leen incha allah kon ñu ngi tolloon rek ci mbirum góor jigéen wax li ci sunu borom subhanahu wa taala wax
waaw riba riba dëgg la jërëjëf papa jërëjëf ñu ngi woon ci riba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne riba dirhamu riba yaakuluhu rajul wa huwa yaalamu ashaddu min sittati wa thalathina zinatan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam riba bu waay lekk nit koo xam dafa lekk riba benn dërëm te leer na ko ne lii riba la yonent bi nee na moo gën a bon ci yàlla ci fanweer ak ñetti njaaloo waaw fanweer ak ñetti njaaloo moo gën a baax lekk benn dërëmu riba boo xam ne leer na la lii riba la xoolal ñun fii tey xoolal riba bi nu mu bare nawet bi lebal ma benn saaku fukki saaku ñaari saaku lebal ma sër yi bu teewee dërëm la bu te bu bu bolee bor ñetti dërëm daanaka léegi nit ñi ci kaw suuf riba la ñuy dunde am na ñoo xam ne alalu riba seen yoon nekku ci riba guddi riba bëccëg mbokk jullit yi juróomeelu tomb mooy alximaar wal maysir mooy carte carte ak wuure carte xool leen tey wuure gi nu bëree ci dëkk bi da ngay romb Dakar ab kesk xam nga kesk bi ki fay liggéey lu muy jaay xam nga kooku luy liggéeyam moo tax barki démb damaa dégg ñu am benn ministre bu bees bu ñu fal ñu ne dafa jiite woon loterie nationale waaye day moom ger na ger goo xam ne da def def na musiba goo xam ne amoon nay billet màkk yu mu joxe woon ci loterie nationale amoon na ay sa jàkk yu mu jëndaloon ay sijaada ci loterie nationale ngeen defee ne jàkk juñ tabaxee loterie nationale wala ñu jënd ay sijaada waa loterie nationale jënd ay sijaada ne dem leen ngeen jox waa jàkk ji mbokk yi loolu fu ñu jëm te yàlla yonent bi nee na yàlla bu araamalee dara yàlla day araamal njëg li inna allah isa harama shay harama saman gis nga yàlla bi mu araamalee xaj ne xaj araam na dafa araamal ku yar xaj jaay xaj di liggéey ci xaj ndax dafa araam naka la yàlla di araamalee carte nit ñi jël benn société di ci liggéey di ci yóbbu nit ay màkk di ci jëndal ay daara ay kaamil di ci jëndal ay jàkk ay kaamil di ci jëndal ay sijaada kon carte dafa haram jàng nañ ko ci alquran yàlla ne ba mu limee sàngara rek ba mu ci teg mooy lan mooy carte innamal xamru rek lu mu ci teg mool wal maysir yàlla ba mu waxee carte rek la mu ca sàngara rek la mu ci nekk mooy carte kon carte dafa haram yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom tamit daan ñu koy wax daan ne ci carte ci juróom-benneelu tomb ci mbir yi nga xam ne buñ ko mooy te ni koo daal di texe yàlla subhaanahu wa taala mu ne ar rishwa mooy lekk ger ar rishwa mooy lekk ger ger waaw ger waaw tey ci dëkk bi mbokk yi fan ngeen gis fundul lekk ger nit ñi dañoo tàmm ger tàmm mbon tàmm mbon tàmm mbon ba dañ ko jël sax léegi di ko yóbbu ci lu baax xool da ngay gis nga dugg ci kër nuyoo bëgg dara ñu ne la nuyoo murit est-ce que murit yi nan doon nuyoo Serigne Touba mooy lekk ger xam nga loolu yàq la nuyoo muritan ña doon ziyaare sëñ bi daan ko jox addiya loolu du woon ger addiya lañ ko doon jox kon léegi buñ ko jëlee bu ko yóbbu ci ger loolu ak mbon la jaaduwut bu ko askanee lu baax ndax joxe addiya joxe addiya loolu diine def coo wax yonent bi moo ne tahaabu tahaabu joxe leen kado ndax ngeen bëggante dee leen joxante ndax ngeen bëggante dee leen mayante ndax ngeen bëggante est-ce que ger nag may la da nga nekk ci xolal tali bi xolal tali bi police téeméer gendarme 1000 francs kii maa ngi moom ñoo àndoon Gàmbi oto ot seen seen seen biis bi góor gi ay téeméer la wecceeku rek ak ay 1000 francs ba mu duggee Gàmbi daal di jàpp police gambien bi 500 francs police bi dafa gestu beneen oto bi na ko defal na góor gi waaye waaye defal na góor gi yow amul indi permis amul këyit amul dara foo wàcc 1000 francs la rek nga dem sa yoon ak lu la neex def bu la neexee nga dawal oto bi sans permis bu la neexee oto bi na duy drogue ba mu fees tal benn waaye daf ñuy nettali mu ne dañoo droité seen benn otoom boo xam ne oto bi lépp fraude la mu ne kan moo monté ci poste bi ñu ne ko diw mu ñëw ne ko un million ngi nii nga bàyyi ñu dem waa ji ne ko yow yaa un million yëpp du ngeen fi jógee yow parce que yow da nga ma bëgg a ger mu téléphoné chef waa jooju waaw ki seefu kooku mu téléphoné ko ne ko sa sa benn agent moo ma jàpp fii mu ne ko kan la mu ne ko diw mu ne ko am wuy sa chef mu ne bàyyi ko mu ñëw fii ci man mu jàll daal dem jox chef bi un million bi tegal ko ci marchandise yi dara daal di yóbbu oto bi daal di ah di yeesu ginnaaw xool agent bi mu xool ko mu ne ko bàyyi bàyyi waaw yow léegi sa chef bu defee noonu yow suba nooy def ndax yow suba ku yorati ñaar fukk di di di di nga ci wax waaw loolu mooy suñu wax te ger musiba naaru laay la yàlla dene wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil wa tadlu biha ila alhukam li taakulu fariqan min amwaali nnaas bil ismi wa antum taalamun loolu la yàlla wax li nekkul ci suratu baqara bu leen lekk alalu nit ñi seen diggante ngeen di lekkante seen alal ci neen boo buggee këyit foog nga joxe dara boo def yoree lu bon foog loo bëgg ak même bu doon pièce d'identité la lu mu tuuti tuuti foog nga joxe dara fan la nit ñi jëm ñëpp di lekk ger te ndeysaan xoolal lekkatu ger yi fu ñuy mujj dañ may nettali benn policier boo xam ne dañ ko gis fii ci kër ayib poste frontière Gambie Sénégal ñu teg ko ci puus-puus rek benn chauffeur yuuxu ne xam ngeen kii ñëpp taxaw i waa ji mënul tax taxaw léegi ci puus-puus la toog policier bu soxor la woon dégg na ndax ti lekk ger xaalisu nit ñi wallahi gis nga yàlla li mu wax ku ko bàyyiwul yàlla moom fa mu nekkoon démb ak barki démb jógewu fa wallahi doo génn àdduna te gisoo ko te wallahi boo rëccee ci àddina bi doo rëcc bàmmeel lii na leer ci ñun ñu normal ñu nekk ay jullit sunu deewee yàlla dugal nu aljanna loolu dong leen fi parce que danañ dee yàlla tere ba pare ñu lànk na yàlla li nga tere danañ ko def te ëllëg da ah waaye loolu yéen tamit sëñ bi kër gi borom kër gi rëdd kër gi tëral fi ay luwaane lii la xale yi juddoo ci kër gi nekk xale yi ndaw ñëw bëgg a fecc ci kaw góor gi nekkoon li nga fi wax yëpp dañ koy teggi sànni fële kër googu dina neex suñu kër yi rek du neex wala atelier bi rek atelier bi nga embauché ay nit ne leen lii laa bëgg ñu ne loolu nga bëgg du fi am ñun li ñu wax mooy am ah mbokk yi ñun ñii kan moo bëgg société boobu kan moo bëgg kër googu yàlla rëdd àddina bii muy këram mu wàcce fi ay jaam yi ñuy ay jaamam mu wax leen ay sart wax leen ay luwaane lii la jaam ñi dëgër bopp ne duñ def loolu ba pare danañ dajeeg yow yàlla du baax de du baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na arrashi wal mustarshi fi wal mustarshi fi lhukmi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kii geraate ak ki ñuy ger ñoom ñaar ñoo yem atte yow miy geraate ak ki ñuy ger yéen a yem atte démb barki démb balaa may ñëw fii sama benn xarit bu ma ganee si mu ne ma Italie la jóge mu ne ma dama ñëw fi indi benn oto di ko dawal benn police seere ma ne ma permis bi ma jox ko lu mu wax ma jox ko ba mu xamulee fu mu mujj mu ne takkoo ceinture takkoo ceinture waa ji ne ko bindal mu ne ko 3000 laay bind de 3000 laay bind dégg nga lu mu ko bëgg a wax 3000 laay bind de waa ñu ne ko waa léegi léegi kon pour nga bañ a bind 3000 mu ne jox ma 1000 francs waa ñu ne ko bindal 3000 mu ne ko wallahi gis nga bu ma bindee 3000 gis nga sa permis bi dinaa toog une semaine du ma ko yóbbu police ba pour nga jot ci di nga wër ba sonn fële laay monté semaine bi fële laay monté te sama poos laa koy def du ma ko bàyyi police ba xanaa loolu mooy sama su ma la bindalee dëgg gi sax balaa ngay jot sa permis bi di nga sonn fan la waa yi mujj mooy waa nekk léegi bindal mille am mille francs yi jox ma sama permis xoolal loolu ngir bëgg a lekk mille francs jàmbur rek te loolu ngay def noonu musiba la ci yow yal na ni yàlla musal ah déedéet kooku koy du am benn daan ndax kooku dafa loru léegi te ad daruraat tubihul mahzuraat juróom ñaareel ci mbir yoo xam ne ku ko moytu dugg àjjana mooy al musiqa mooy musique musique musique bi tey tasaaroo sunu biir kër yi musique portable yi montre jàkka yi fu ne xam nga ndeysaan ñi def lu bon dañoo garaaw ñi def lu bon ak ñoo xam seeni pexe xam ngeen nodd bi nodd balaa muy am ci lislaam nodd balaa muy am nodd yi ñuy dégg sahaaba yi dañoo dajale ne yonent bi comme tabax nañ jàkka ji ba pare nañ ut béjjén yonent bi kon dañuy nuroog yahud yi bàyyi leen xel bu baax ci li may wax nan ut béjjén bu julli jotee ñu wal ko mu ne fon yonent bi ne kon dañuy nuroog yahud yi
waxal kii waaye mu bàyyi nii de
ñu ne lan waaw yonent kon nañ ut joolooli cloche weñ goo xam ne bu julli jotee ñu jël gi weñ gi fëgg ci weñ ci kawam mu ne keng keng nit ñi yëg ne julli jot na yonent ne kon dañuy nuroog nasaraan yi te man yàlla daf maa yónni ma war a wuuteeg yahud war a wuuteeg nasaraan léegi nag ñu daal di jël ndeysaan nga toog fii ñu tabax jàkk ji ba pare benn waaye ñëw daal di indi montre boobu nag montre boobu nga xam ne ci église bi la doon nekk daal ne may naa ko waa jàkka yi bu julli jotee nga dégg montre bi ne keng keng keng nga doog ñu ne nii ne bismillah gis nga dugal nañ ko fa ndax nañ leen ba dugal ko fa te yëguñu ko wala montre bi ne ki ni ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ñu ne waaw waxtu bi jot na gis nga nax nañ leen te ñoom lan lañ waroon soxla mooy heure bi rek waaye nax nañ leen ba dugal leen mbir mi ci biir beneen bi ñu naxee mooy dañoo jël ay nit tëggal leen ay woy ci sunu sëriñ si ñu koy woy mu neex nu ba kenn waxatul musique araam na da ngay toog ñu ne la kinne maam kinne maam bamba dégg nga maam bamba ñu utal ko kinne ñu utal alaaji maalik du ngeen waxtu bi jaal jaal ñu utal sëñ fàllu ñu utal sëñ fàllu ndongo gis nga ñuy way ñu ne ak ak ñoo ñu doy way naan loxo ci kaw loxo nga gis paa yi toog naan nii paa bi yoroon kurus sax nga xam ne waroon dafa waroon wax araam na fay leen day toog di yëngal tàng naan wàññil Moodu wàññil léegi au lieu mun a fayal danaan wàññil wàññil te dafa araamoon xam ngeen yàlla lan la wax ci alquran waaw léeg-léeg sax ñu maye courant maye courant ndeysaan benn góor gu baj gu bëgg lu baax dafa am sët ñu ñu dem di musique mu wax dem kaw dem suuf waa kër gi ne dañuy musique maire yi dem ca jàkka ja boole ko waa jumaa ji waa jumaa ji ñëw de lan la ñu waroon du def du jàppale góor gi ñu ne góor gi nañ dem li nga amoon jeex na xale yaa aye ñii jàpp loxo góor gi ndeyjoor ñii jàpp càmmoñ ñu nguur fan paa bi yóbbu ko jàkka ja ne ko léegi toogal fii daan ne jigéen ñi indil leen ko añam jàkka ja góor gi dem yendu ji ca jàkka ja mu toog ba moom ñetti fan ñeenti fan juróomi fan yàlla def daal di li gën daal di xale bi daal di faatu liir ba faatu waaw bi liir bi faatoo góor gi daal di laajte waaw keroog baaf yi ngeen indi woon fii fu ngeen ko jële ñu ne ko diw diw moo koy luwe ci koñ bi moo koy luwe mu ne fu mu dëkk ñu ne kër sàngam góor gi daal dem daa ne ana borom musique bi mu ne ma mu génn ci néegam ne maa ngi nii góor gi daa ne ko këf gi loo koy luwe mu ne ah këf gi de juróom junni ak ñaar téeméer laa koy luwe mu ne ko junne ak ñeent a ngi nii bu kanamee nga indil ma ko ca kër ga boo ñëwee rek mën ngaa commencé nag ah nit ñi toog mu teg oto ci affaire yi indi commencé wàcc nit ñi naan xanaa kii alxuraan lay dégg mu jékki-jékki rek rëng rëng rëng ñu ne ah subhanallah la ilaha illallah subhanallah eh yow xanaa da nga dof mu ne lan la ñu ne ko fii dëj la mu ne ah man paa bi moo ma ne ma musique rek góor gi génn ne lan la lan la ñu ne waaw góor gi kii kii xanaa da ngaa juum kii kii de dafa ñëw ne de yow yaa ne musique mu ne waaw maa ko wax ñu ne déedéet xanaa yëgoo ne xale gaañu mu ne waaw du musique moo ko teeru woon keroog bu mu juddoo du musique ko teeru woon ku léegi kay musique bi ne ko gunge ñu ne déedéet góor gi mu ne mani eh maa la fay sama xaalis yow si sama kër la bismillah nit ñi la déedéet déedéet nit ñi ko de xoolal si naa fekk gi est-ce que góor gi waxul dëgg ñu daw wooy paay paay ñëw mu ne leen yéen yéen ay naa fekk ngeen yéen du ngeen ay jullit yéen kii keroog musique teeru ko fii ci kër gi ñu yàlloo ko kenn waxul tey mu génn àdduna ngeen ne musique du ko gunge mbokk yi xool leen léegi musique bi sunu biir kër yi portable yi fii ñu fii ñu toog ni ñun ñii kan moo bëgg bisu dëjëm ñu musique kan alors pourtant bis bu nekk ñu koy déglu booy xool télé boo déglu rajo portable yi musique guddi kër goo gis musique a ngi fa bu ñuy ngénte suñu musigul da ngay dégg sax boo amul musique nga dégg waa koñ ba ngénte lii de dafa mel ne dëju liir lii de neexut waaw lii de neexut ah lii de aka soof kii de ngénteem ngee soof kii de xewam bi aka soof moom de nit ñi dañoo toog rek di xoolante dara amu fa loolu la ngay dégg nan ragal yàlla musique baaxul musique baaxul aduna baaxul alaxira xam ngeen nu ko borom xam-xam yi tuddee mismaaru shaytaan yàlla ne wa min annaas man yastari lahwa alhadis li yudilla an sabilillahi bi gayri ilmin wa yattaxizuha huzwa xool yàlla ni mu ko tuddee yàlla ne am na ci nit ñi ñoo xam ne musique la ñuy jël caaxaani wax neexal ko pour réeral yoonu yàlla musique ak alxuraan lu tax ngénte loolu wala ceet boobu wala xew boobu ci kër gi lu tax teguñu fa alxuraan kenn bëggu ko boo fi tegoon tey boo amoon ngénte teg alxuraan wala ngay ceetal teg alxuraan ngay dégg ñu ne waaye affaire paa yi nag waaye yow dindil li waaye li affaire paa la loolu lañ la yow waaye looy gëm-gëm lu nii dañ lay jéem a xas xam ngeen yonent bi lan la wax ci al ci musique yonent bi nee na la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna alxira walxarir walxamru walmaasif ay nit a ngi ci sama xeet danañ daganal ñeent yu ma tere woon man yonent bi danañ daganal njaaloo danañ daganal sangara danañ daganal soie danañ daganal musique sëriñu sëriñu waa Sénégal sëriñu sëriñ si muy imaamu Malik Sénégal du ci ngirum Malik lañ nekk alaaji ma waxuma alaaji Malik si de sëriñu alaaji Malik sëriñu Cheikh Ahmed Bamba mooy imaamu Malik sëriñ bi ba mu demee géej dafa bind ne leen nekk leen ci ngirum Malik du loolu la bind kon am imaam Malik mooy sëriñam imaam Malik moom lañ fekk ci jàkka yonent bi mu toog ñett la boole woon ñetti ndomba tànk moom imaamu Malik jàngalekatu jàkka yonent bi imaamu jàkka ji attekatu jàkka ji da doon toog ba caag mu ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza alqabr waxu ku nekk mën nañ koo sikki saaka ba mu des waxu waa ji mu jël loxo càmmoñ ndey jooram bi daal di koy raay bàmmeelu yonent bi bu daan bu daan jàngeelu bu daan jàngale bàmmeelu yonent bi lay njeganaayoo keroog bu muy génn àdduna mu ne maa ngi leen di wax sama ngànt ndax sama soppe bi tëdd fii mu ne maa ngi leen di giñal bi ma amee ñaar fukki at ba fi ma toog guddi gu ma tëdd dinaa ko gis dinaa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ fekk jàkk yonent bi muy jàng ñu ne ko waa sëriñ bi loo xam ci musique mu ne innama yasmauhu indana alfusaq képp ku ngeen gis mu koy déglu te bokk ci sama waa kër kàccoor la mu xam ñu jël ko ci jàkka ji yóbbu ko kër ga di ko sotti ndox bi mu ximmili ko mu naan ndax ab jullit dina ko déglu hal yasmahu muslim ndax ab jullit dina déglu musique waaye waaye ndax ab jullit dina ko déglu imaamu shafii buñ ko laajee musique mu ne yunbitu nifaaq fi lqalb fala yujibu nii mu ne day saxal naafiq ci xol yéemu ma man wax na dëgg gis nga foo gis déglukatu musique musique bi day dem ba saxal ak naa féq ci xolam boo ko ne yàlla ne la mu ne la waaye nag da ngay wax da ngay wax ba sonn ne ko yàlla ne mu ne waaw waaye nag waaye nag xam nga nag ñu nay xale lañ lu ñuy def waaw léegi nag léegi nag waaw waaw xam nga léegi nag saa yoo waxee déglu ko du musique ne ko yàlla nee na wala yoon di ne dina la ci tegal wax du la ne mu dégg naa ko jëfe naa ko danaan la waaye nag baaxul ñu fekk sëriñ bu mag bi Abu Hanifa ñu ne ko yow Abu Hanifa lan nga xam ci musique mu ne simaul agani fisq wa talazzuzu biha kufr déglu musique bandi moo koy def mu ne ku ci kontaan nag mu ne kooku kàccoor la fisq ñu ne ko ku ci kontaan mu ne kooku yéeféer la képp koo gis ñu teg musique yenn saa yi nga gis ñu teg musique ci koñ nga gis benn maire bu màgget de boo xam ne jaamu yàllaa ko dese mu tas mu sóor gi daw ba ci digg bi daan mag buura lu mu def yàlla baal ko ko waaw tas mu sóor bi lay def de daw ba ci digg bi fecc ba doyal génn ñu ne ko waaw mu ne lu mag buura lu mu def yàlla baal ko ko fan lañ jëm réew moo xam ne dara araamal li yàlla araamaloon yëpp réew mi daganal nañ ko lii ma wax lépp est-ce que amul ci Sénégal te te yonent bi nee na ku ko ku ku ku ci rëcc rek dugg àjjana ku ci rëcc dugg àjjana yonent bi moo ko wax bokk jullit yi juróom-ñetteel mooy alkadibu fen fen li nit ñi mënta mucc nag fen lu yàqu rek lan moo ko yàq benn waay daa ñëw ci yonent bi ne yonent bi dénk ma mu ne ko bàyyil fen mu ne wax dama ne nga dénk ma de yonent bi ne ko bàyyil fen wax ji dafa tuuti ci moom xoola fi mu nekk nii nit bu ñëwee ci yow ne la dama bëgg tey nga wax ma lu may jëriñ nga ne ko bàyyil fen mu naan waaw de dama bëgg nga wax ma loo xam ne dafa bëgg nga naan ko del julli guddi del woor del jàng alquran del wallahi ku bàyyi fen rek rëcc waa ndax mu gis ngeen ku dul fen ku dul fen benn borom xam-xam dafa jël dafa jël téeréem di jàngi benn borom xam-xam dafa jël téeréem di jàngi ñu ne ko looy jàng mu ne téere sàngam laa bëgg jàng ñu ne ko dëkk sàngam borom xam-xam boobu moo koy jàngale. mu dem mu yegg mu gis borom téere boobu kooku di jàngale téere bi yor benn leket xaram rëcc mu naan xar bi bar te leket bi dara nekku ci. kam doon jàngal daal di dëpp dem yoonam moom jotul sax jàng jotul sax nuyonteeg waa ji mu ne ko eh eh yow doo doon jàng si mu ne ko waaw mu ne ko léegi nag doo xaar ba ma ñëw mu ne ko man yi koy dooma jàngal doyotoo ma mu ne ko lu tax mu ne ko nga fen xar mi kuy feni xar dana feni nit mu ne ko nan laa fene xar mi mu ne yaa ngi naan xar mi bar te leket bi dara nekku ci ay fen la wax na dëgg wala waxul dëgg yeneen bi nee na boo nee sa doom demal ci bitig bi jëndal ma dara dawal te ñëw boo ñëwee ma may la dara mu ñëw joxoo ko yeneen bi nee na yow fenkat nga. léegi nag waxatuma la dara ñun dañoo tàmm fen ba weer yi ñu utal ci weer woo xam ne ku mu neex nga fen wala. dañoo tàmm fen laa wax ba am weer woo xam ne ku mu neex nga fen. mooy poisson d'avril weeru avril ku mu neex nga fen yenn saa yi da nga gis ku jël téléphone am daal di téléphoné kër kër mbokkam allo ñu ne waaw ñu ne yëg ngeen ne diw dee na xoolal dee yëg ngeen ne diw dee na waa kër googu fàq daw dem kër ga la fekk kooku toog di añ ñu ne waaw lan la ñu ne dañoo dégg diw dee na ñu ne poisson d'avril la xoolal loolu ni mu doye waar te ñu tere la fen waaw nañu ragal yàlla jullit du fen jullit du fen te fen bu nu xamoon ni ko yàlla ñaawale ak yonentam danañ ko moytandiku yone iyaakum wal kadibi moytu leen fen fa inna al kadiba yahdi ila al fujur gis ngeen fen day yóbbu nit mu kàccoore xoolal animateurs yi télé yi ay fenkat rek théâtre yi fenkat ñooñu tey ñoo ñooy sunuy idole ñooñu mooy sunuy roykaay ay fenkat te yonent bi nee na fen day yóbbu nit ba mu kàccoore lu ko neex def lu ko neex wax boo tàmmee fen loo neex wax loo neex def mu ne nit du dañ di fen di fen di nekk ba nekk fenkat yàlla day woo jibril ne ko diw fenkat la na nga dem ci malaaka yëpp nga wax leen diw day fen yàlla bañ la ñëpp bañ la kaw suuf ñëpp bañ la ñu effacer sa tur ci nit ñu dëggu ñi nga nekk fenkat ba ba ngay dee yowmal qiyam kon sunu borom subhanahu wa taala tere ñu fen yàlla nee na inna allaha la yahdi man huwa kadabun kafuur yàlla nee na man du ma defar jëfi fenkat fenkat yéeféer du ma defar mbiram mukk ci àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man kadaba alayya buniya lahu baytan fi jahannam képp ku ma fenal danañ la tabaxal benn kër ci këru jahannam beneen riwaaya mu ne man kazaba alayya falyatabawwa maqaduhu min an nar kiñ doo firil hadis bi ndeysaan yàlla na ko yàlla fay nee na yonent bi nee na ku ma fenal booy dem safara bu yóbboo nga yóbbu fooy toog looy mu loolu mooy falyatabawwa maqaduhu min an nar ñu ne ko waaw lu tax nit ki du yóbbaale mu ne fépp fooy dem ñu ne la yóbbaaleel fooy toog loolu ci loo ciy dégg mooy foofu da nga faa nar a yàgg moo tax ñu ne la yóbbaaleel fooy toog ndax fooy dem nar faa taxaw nangami at ñu ne la yóbbaaleel fooy toog ndax sa taxawaay bañ a metti mbokk julit yi juróom-ñeenteelu tomb ci lu ñu war a mooy te ndi ko pour yàlla gërëm ñu ñu dugg àjjana mooy ashirku bokkaale bokkaale tey nag néew na ku ci mucc néew na ku ci mucc bokkaale dañoo laaj yonent bi ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi mu ne an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak nga utal yàlla moroom te yàlla la bind mbokk yi yàlla du moroom boroom la yàlla amul moroom moo tax yàlla kenn waru ko dendale kenn wala leen yonent bi li muy foor jibril mikail asrafil abubakar saddiq omar kenn waru leen dendaleeg yàlla nit ku baax ku baax rek nga bu la kenn dendaleeg yàlla nañu moytandiku bokkaale bokkaale dafa sew yonent bi nee na ashirku axfa min dabibi nam la sirk bokkaale dafa sew ba moo gën a sew tànki xorondom bu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci lëndëmu guddi ñu ne da nga xool tànk yi ndax di nga ko gis moo tax sunu xol yi nañ ko aj ci yàlla bu nu bokkaale nanu moytandiku bokkaale nañu xam lan mooy bokkaale nañu jàng sunu diine ba ñu xam lan mooy bokkaale te la nga dégg ku ne bu neexee yàlla ak diw déedéet bu neexee yàlla kese yàlla rek lay neex dara am keneen mënu la dara mënu laa neex wala mu naqari la ba li nga bëgg am mbokk yi ndax kenn ci ñun bëgg na baayam dee ndax kenn ci ñun bëgg na jabaram dee ndax kenn ci ñun bëgg na doomam dee ah kon kay yow boo amoon coobare wu ñooñu dun dee feebar nag kan moo bëgg feebar dal njabootam wala dal ko kon bu kenn di dendaleeg yàlla yàlla rek benn waay ñëw na fekk yonent bi toog mu ne bu neexee yàlla ak yonent na ko déet bu ma booleeg yàlla yàlla rek man kat yonent laa yàlla damaa yónni rek qul ma sha allah wahdahu bul ma booleeg yàlla yàlla rek moom moom mbir mi yàlla bëggul wujju de moo tax bi ñu laajee yonent bi ban bàkkaar moo gën a rëy mu ne nga dendale yàlla ak kenn yàlla kenn du ko dendale kenn moom rek cappaacoli moo tax nan la tudd alwaahid kii kenn kii kenn wala jànguñu ko qul huwa allahu ahad yàlla nee na man kenn laa kenn bu ma kenn utal ñaar yàlla rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko laaj mu ne ëllëg tribunal bi gën a rëy diggante yàlla ak nit ñi mooy bokkaale man yàlla maa bind ñu jaamu keneen man yàlla ma war sëgale ñu sant keneen kon yooyu bokkaale la nañ ko moytandiku fukkeelu tomb ci mbir yoo xam ne buñ ko moytoo dugg àjjana mooy sàcc as-saraqa sàcc as-sariqa sàcc qaala taala qaala taala yàlla subhanahu wa taala mu ne as-sariqu was-sariqa sàcc gis ngeen foofu yàlla ba muy wax sàcc góor la jiital ba muy wax njaaloo azaniyatu la wax jigéen la jiital gis nga lu tax ñu ne li ëpp soo fekkee sàcc da ngay fekk góor la waaye njaaloo moom munta am lu dul jigéen a nangu moo tax yàlla jiital jigéen saa yoo déggee diw njaaloo na ku mu ko defal ku jigéen waaye sàcc mën naa am jigéen de waaye lu ci ëpp góor la moo tax yàlla ne su ngeen jàppee sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen na ngeen dog seen loxo moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan mu ne laana allahu sariq yasruqu albayda fa tuqta'u yada yal na yàlla rëbb aw sàcc xoolal nen la sàcc ñu dagg loxo bi nen nen nen bu la nen gënalee sa loxo nen nen lu tax pour dëkk bi dafa war a ñoŋ dara waru fee tambaambaalu ak nit ñu bon waruñu fee tambaambaalu dëkk bi yëpp na ñoŋ bu fi kenn di jël alalu jàmbur loolu mooy fukkeelu tomb mooy sàcc fukkeelu tomb ak benn tashabbuhu rijaalu bin nisa góor ñi di nuru nuru lu jigéen ay góor yoo xam dañuy dem bay nuru nuru lu jigéen ay góor yuy léttu ay góor yuy sol yére jigéen ay góor yuy jëf-jëfi jigéen di fecc ci sabar yi la ilaha illallah di fecc ci xew yi xoolal télé bi clip buñ la génneel am na góor ñuy fecc ñoo dàq fecc jigéen ñoo daax fecc jigéen ñi waaw di sol ay tubéy ay pain waki meew waki kenn xamul lii lan la luy pain xanaa pain moom ci doxat lañ ko xamoon ngeen baal ma pain foofu kat lañ ko xamoon xoolal góor ñi dem ba góor dootul takk tubéy ci ndiggam góor goo gis mu ngi wagasu rek di kërëj kërëj ci di dem kuy dox fii ak jàkka ji dina wagasu ñaar fukki yoon loolu fu ñu jëm loolu ban jikko la te loolu bu ngeen demee dëkk yi mu xewee ñaari nit ñoo ko fay def ku ñu tëj kaso ak góor jigéen ku ñu tëj kaso Amérique lañ doon dem ku ñu tëj kaso dañuy dindi sa ceinture bañ nga xaru ci wala nga gaañ ci sa bopp def ci sa bopp lu bon ñu dindi ceinture bi ñeneen ñi mooy góor jigéen yi léegi nag bu ñu demee ba ay jullit ci Sénégal tudd ay Alaaji Malik ak tudd Cheikh Ahmad Bamba tudd Muhammad tudd Abdallah tudd Aboubacar di def loolu di toppandoo nit ñu bon ñooñu moo xam ne ñun alku nanu takk ay seen takk ay lam bënn seeni nopp def ci jaaro di léttu waaw di tent seen bopp yi jëf yu bon yoo xam ne kenn xamu ko loolu yal nañ ci yàlla musal mbokk yi yonent bi nee na yal na yàlla soril yërmande góor guy nuru nuru lu jigéen yar na la yàlla soril yërmande kan moo ñaan ñaan bi yonent bi ngeen defe na yonent bi dina ñaanal nit alkane nit kooku am jàmm yonent bi moo ñaan de waxuma Samba ñaan waxuma Demba waaye yonent bi laa leen wax moo ñaanal nit kooku alkande kon mbir yooyu dama ko wax Sédhiou biñ demee Casamance ci jumaa ji ñu ma yónni woon naa leen defal waxtaan ma wax ko ilimaanu jumaa ji jooy ne ma sama doom dafa jógee Dakar di takk tubéy ji ci oom yi ma ni ko lii lan la mu ne ma waayaa père xoolal kii faalewuma mu ne ma dem jàpp ba set ne ko du da ngay jàng xale bi ne waaw mu ne ko tere naa la li nga bañ maa ngi ñaan sama borom yàlla boo admé ci examen bi tudd man ngay tàngal sama xol mu ne ma oustaz wallahi examen bi dafa jeex dara la amul nee naa ko nag feek li ma wax ba góog defoo ko du ma denc la ñaan yàlla rek ba ba ngay dee loolu musiba la te xoolal ilimaanu jàkk doomam di takk tubéyam ci ay óomam waaw ma ni silib lu ñu ciy wane silib te sax yàlla aka neexoon mu nekk silib bu set silib boo xam ne am na juróom-ñaari fan kenn bàcc ko silib bu xàll boo xam ne nga gis yenn saa yi ku dem ci jàkk di julli ñu ne allahu akbar daa di rukkoo mu rukkoo tubéy ji wàcc silib bi génn ma ne waa lii moom lii moom ban julli la kuy julli ah loolu caaxaan la nan delloo si suñu xel suñu bopp nan xam ne ñun ay jullit lañ nan bàyyi caaxaani mbokk yi fukkeelu tomb ak ñaar ci mbir yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala nee na buñ ko mooy tund ko rek daa di dugg aljanna mooy tasabbuhu nisa bi rijal jigéen ñi it jigéen ñi nuru nurulu ay góor xoolal tey ah xaw ma fii de waaye Dakar moom amatul jigéen juy woddu ah fii nag xaw ma waaw fii moom yàggaguma fi waaye Dakar amatul jigéen ji woddu jigéen joo gis tubéy la sol jigéen joo gis mi ngi karas karas moom it mu ngi wàcce waaw ana jigéen ak wàcce tubéy génne jumbax bañ naa ne jumbax aaw waaw ween yi ci biti koo wax mu ne damay paccal ngeen defe ne ween yuy génn ci biti wala yu dina ci nàmp kan ci ñun mooy def portable am poche bu bënn nekkati loxoom kan ci ñun mooy def xaalisam ci kalfe bu bënn kan ci ñun mooy denc alalam ci néeg bu dul tëju kan waaw ngeen defe ne yàlla dina jël wàllu yoom di ko dénk jigéen joo xam ne ay weenam mi ngi ci biti xool leen mag ñi baax ñi juddoo Sénégal lim leen seen tur yi tàmbalil ci El Hadji Omar Foutiyou ñëwal ci Cheikh Ahmad Bamba demal ci El Hadji Malick limal ñu baax ñi kan la ci way juram meloon noonu kenn ñëpp dañu doon sàng seen i awra moo tax yàlla may leen ñu baax ñun ba nu commencé jigéen ñi paccal di génne ween di kiris karas di génne seen i silib ci biti lan la nu yàlla may ay mbërëg ay kankurang ak simbkat ak ay buubu goloog ay sidrax rek xool leen li ma wax ay mbër rek ñooy judd Sénégal léegi ak ay simbkat ak ay musiciens ay danseurs rek ñoo fi am amatul leneen kan la ñu gëj a am ay waliyu kañ ba ñu bàyyee mag ñu baax ña fa ñu jaaroon di defal suñu bo xale nga defa ne jigéen jigéen joo xam ne yaramam lépp a ngi ci biti yàlla dina defal kooku mu jur ku baax jigéen joo xam ne fu mu tourné yaramam mbaa ngi ni di feeñ da koy asaaloo foo tourné gis foo tourné gis awraam a ngi ci biti ay lii lii ak a ñaaw lii ak a ruslu te boo ko woowee noo tudd mu ne la man Fatima Khadija Roqaya Maam Jaara Mariama loolu la tudd bàyyi yaramam ci biti jigéen ju baax day suturaal awraam da koy nëbb mbokk julit yi yonent bi dafa ne yal na yàlla soril yërmande jigéen ji tambaambalu ci mbedd mi al mutabarrija al mutarajjilaat minan nisa yal na yàlla soril yërmande jigéen ñi tambaambalu ci mbedd yi di génne seeni awra fukkeel ak ñett atabarruj gis ngeen mooy li ñu doon wax léegi foo gis jigéen mu ngi ci mbedd yi di lambar lambari waaw koñ boo romb xale yu góor yi ne la waaw nga ne lalal naa la nga daal di jaar ci kaw bu njëkk ba jigéen bu ne tëll ci koñ gis ay xale yu góor yu toog wala ay mag yu góor toog day wëri day wëri wala mu tafu ca tappaati miir ya waaye tey da ngay ñëw ñëw ba ci ñoom naan nu ngeen ma gisee tey nu ngeen ma gisee waaw booy naan ko yaa jam bi yaa nangam nan noonu yàlla defal sutura yàlla subhanahu wa taala dana jigéen ju baax day toog ci biir këram waqar na fii buyutikunna toog leen ci biir kër yi la yàlla wax toog leen lii wax yàlla la waaw lii Moustapha Gueye di wax ne ku ñuy denc ko lu ñuy denc loo xam ne fu ñu dem fekk ko fekk ko fa te dañ koy denc ndax loolu léegi dencetu na dañ koy denc te mbedd moo dem fekk ko fa ndax loolu léegi dencati nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne jigéen su génnee biir këram seytaane daf koy topp looloo am léegi wallahi alazim jigéen bu génnee rek seytaane topp ko ku mu romb boo dee góor seytaane naan waaw ndaw si loo wax ci moom xoolal dënn bi xoolal ginnaaw gi xoolal lii xoolal wet gi xoolal rawatina nag bu solul yére rawatina bu solul yére moo tax léegi loo gis dëkk bi yëpp mu nëpp lépp a nëpp lépp a yàqu kenn du wax ba nu déggal la képp kuy wax wax ju baax ju mel nii yow yaay noonu nit ñi yow yaay ku bëri wax yaay ku bëri histoire yaay koo xam ne da ngaa yow neexoo dëkkal kii dafa lakkale kii dafa lëjle fàtt na nit ñi mayul nit ñi jàmm yenn saa yi sax ñu ñaan yàlla na nga dee ba ñu noppalu. waaw yàlla ñu ne kii yàlla na dee ba ñu noppalu. ndey te yow lu baax rek nga bëgg da ngaa bëgg rek bu nu deewee dugg dugg àjjana waaye dañ lay sikkal mbokk julit yi fukkeel ak ñeent mooy an namima rambaaj. nekk ci dëkk rek di tas di jaxase nit ñi nekk ci kër di rambaaje nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yadxulul janna nammaam kuy tas ànd gi di tas mbokk gi yonent bi nee na yow doo dugg àjjana fukkeel ak juróom mool al al xiiba jëw jëw yi dégg ngeen li ci yàlla wax yàlla nee na ndax kenn ci yéen dafa bëgg faatu mbokkam faatu ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu bi mbokkam ba bu faatoo ñu bëgg koo suuli mu ne bàyyi leen ma ma lekk ko a yuhibbu ahadukum an yaakula lahma axihi mayitan fa karihtumu kon nanu ragal yàlla fukkeel ak juróom benn mooy azabhu li gayrillah mooy di rendil kudul yàlla di rendi xam ngeen rendi yàllaa ko moom loolu moo tax tabaski boo rendee da ngay am tiyaaba wala da ngay am bakkaar boo amee ngénte nga rendi looy am boo amee gan nga rendil ko looy am booy ceetal nga rendil looy am ndax yii yàlla la ko sant diine la ko sant yii ma wax yëpp diine ko santaane waaye nga feebar nga dugg ci àll bi benn waaye ne la demal nga rendi boo rendee rek dugg safara booy rendi di dugg safara ndax dangaa rendil ku dul yàlla xamb yi nga rendil tuur yi nga rendil xërëm bi nga rendil yonent bi nee na yal na yàlla rëbb ki rendi te rendilul yàlla gis nga benn waaye ngi ni boo xam ne dafa dugg safara xam ngeen lu mu rey weñ weñ la rey weñ daal di koy teg ci kanamu xërëm bi yonent bi nee na ba mu dee safara la jëm kon mbokk jullit yi lii mooy fukki tomb ak juróom benn yoo xam ne sunu diine nee nañu ku ko moytandiku rek daal di dugg aljanna ñun ñëpp yal na nu yàlla def ñu moytandiku ko yal na yàlla def ci ñu dégg ak topp ñoo ngi ziyaare magi dëkk bi di ziyaare góor ñi ak jigéen ñi incha allah di leen wax ne programme bi jeexagul ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala buñ jullee gee ba pare dinañ leen tegal filmu Bilal ki doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne julli gu yonent bi mos a julli rek Bilal moomu moo ko nodd nañ leen jiima woon tey Bilal moomu mooy kan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
alhamdulilah rabbil alamin waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf.
waxtaan bi am na solo